ca la mu doon war a mën a jëndee. Mhm. problème yi commencé. ñu dem un deux trois quatre. nga soulever waat ci biir problème yooyu noonu yeneen i problème mhm. mais nit ñi dem ba fat je après nag y avait à Touba ay manifestation mhm. fii parcelle am ay manifestation ay guddi nit ñi ne non mën a tuñu après loolu li nit ñi dese woon ci yaakaar nga ne ah fi toll ni nag yaakaar ji leen dese woon moom laa bëgg sàkkal pexe mhm. alors loolu moom moo indi l'avènement de de de Ousmane Sonko et et cetera et cetera. et l'affaire Adji léegi en cherchant des solution ak yooyu. Mhm. ñu commencé di xeex politique ci ñenn ñi. Mhm. di yokk yenn taxi si yenn bërëb yi di yokk yenn mbir yi dund askan wi di gën di di gën di eh, gën di metti askan wi cotiser mille milliards. mille milliards. ci Covid. mais kenn xamul fan la jaar. dañ ko ah, ñu ne la ay looxoo du jeex. dañ ko lekk enveloppe xaalis bu takk bu mu génnee kenn gisu ko. kenn gisul. Ah. pendant ce temps ñu ne la kii day lu taxoon mu doon récupérer lii parce que moo nekkoon chauffeur diw. Mhm. bés bu jot dina récupérer ay millions yu bëri ci alalu askan wi. Mhm. mais nga xool kooku ñàkk yërmande googu mu ñàkk yërmande non seulement mu ngi yokk dund nit mais également mu ngi jël ci alalu gafakay réew mi. au lieu mu dugal ko ci réew mi mais mu dugal ko seeni poos mm-hmm. nga di ko def deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille vingt un deux mille vingt deux deux mille vingt trois deux mais ku ñëw hérité bilan boobu en deux mois. Mm. mu ne la def naa ay mathématiques. ndonte marge de manœuvre amul woon quasiment inexistant. Mm-hmm. parce que fi mu waroon exister dañ ko romb. ki ko waroon mën a def romb nañ ko. Mm-hmm. mais kooku au moins def ay mathématiques. ba am lu mu la wàcceel mais kooku soo ko waxul jërëjëf. véritablement ko goréyaat yi nga. Mm-hmm. parce que lu nga xamante ni ñàkk ko def dara du ko ci fekk mais su ko defee ne ko jërëjëf te xam ne nag gis nga ku la jox ndékki. Mm-hmm. jox la añ bu ne la xaaral reer. Ah. nga war ko mën a gëm. parce que bu fekkee ne ab tàmbali rek moo mel nii non mais mën nañoo gëm ne dëgg dëgg bu ñu ci nekkee. war nañoo mën a am yaakaar. te mhm. yaakaar googu moom la ñuy ñaan. Mhm. yàlla bu mu yàqeeku. yàlla bu mu yàqeeku gis na nit bu nekkee di def lu baax. nga encouragé ko moo gën a yomb nga war nekk fii ne da nga koy jéem a découragé. tout à fait il faut que nag sénégalais xam les enjeux il faut ñu am. Mhm. mentalité wu di multiplier. tout à par exemple tey dañ ma wax way kilo kilo mburu bi euh, dañ ci wàññi dañ ci wàññi. quinze francs mais man bu fekkee borom kër laa gu am juróom-benni doom wala fukk ak nangami doom. doon jënd juróom-benni mburu dinaa wax alhamdulilah. Mhm. ndax chaque jour su ma xëyee dem jëndi mburu dina am quatre-vingt-dix bu may jenc tout bu fekkee trente jours le mois. mais dinaa am deux mille sept cent yoo xamante ni dama koy économiser. Mhm. mais loolu fay na facture ndox wala boog yàq na. Ah yàq na facture ndox au moins. Mhm. mais loolu su ma koy def di ko multiplier di dajale ji loolu. su ma ko defee mais dina am lu nga xamante ni dina ma ko mën a jëriñal. tout à fait mais bu fekkee ne amuñu mentalité boobu te loolu man ci mburu rek laa wax. mburu rek boo ci économiser fay eh, facture ndox. mais bu dee da nga ñëw ci diwlin ñëw ci suukar ñëw ci leneen ak leneen ak leneen mais kooku am na lu mu dugal sa gafaka ak yeneen yu nga xamante ni mais dañ la wax ne la mais le discours était clair. Mmh. on ne veut pas faire des réductions populistes. waay di jël mesures yi tey. pour rek wax leen ne la ñuy jël mais bu subaa <laughs> bu ñuy ñëw yokk ci vingt francs non dañu bëgg bu ñu mënul wàññi it du romb foofu mhm. mais loolu c'est clair mais wàññi ñu fi doon faral di gis mooy fu ñu wàññee woon juróom buy ñëw bu ñu koy indiwaat juróom-ñaar la ñuy yokk mooy que ni at yi yëpp li ñu leen wàññiloon di ngeen ko fay ci at yi di ñëw mhm. et je pense que le discours est clair et stratégie bu ñu jaar mooy bi gën bi pour man may waxtaan ak ñi ci war a waxtaanal. surtout xool les leviers yëpp def le discount. Mhm. mooy li nga xamante ni dafa nécessaire wul ci chaîne bi te doon am ay contournement yu gudd yu doon tax mbir yi cher. yooyu yëpp ñu dindi ko parce que c'est des choses inutiles yu nga xamante ne amuloon njariñ mais nga joué ci loolu nga def ko et puis euh, il annonce que. yenn importation yenn affaires yi. tout à fait dinañu xool. Mhm. mais discount boobu la ñuy joué mhm. mooy liñ doon jaar ci Samba mu jaar ci Demba jaar ci. loxo yu bëri yooyu bala moo bala moo mujjee ci askan wi. mais ñu mujjee ko laala laala laal ba caf ka gam doon am sax dootu ko am. mais léegi ñu ne la loolu nag dañ koy dindi. dañuy jëlee fale ci consommateur ci grand producteur bi ñëw ci consommateur bi direct ko waaw su ko defee. chaîne boobu yëpp doon ñëw doon doon wut lañ ca kii di wut dërëm kii di wut ñaar dërëm kii di wut ñetti dërëm yooyu yëpp ñu dugal ko ci gafaka. mais xam nga Alioune Top justement c'est ce genre de débat là qu'il faut vraiment sur la table pour que sénégalais bi comprenne parce que moi j'ai l'impression que jusqu'à présent sénégalais yi xamuñu lan mooy jubal jub jub jubal jubante. parce que c'est un système boo xam ne danga nga koy combattre. Mm-hmm. démb dama toog bi taxaw Sandaga benn waay ne ma mais saa xaalis xaalis bi circulé wul quoi. ma ne ko yéen sénégalais il faut ngeen xam lan ngeen bëgg bu fekkee ne dañuy def yëf yi njuuj njaaj ñu bàyyi xaalis bi di circuler n'importe comment n'importe qui di yor xaalis ok bu fekkee ne ci logique boobu ngeen nekk mun naa ah, man leen ñu dem ci logique boobu mais mënu leen ne da ngeen di jub jubal jubanti ngeen naan xaalis bi na circuler quoi xaalis buy circuler day tegu ci yoon xaalis bi circuler wul koba non xam ña daan ña daan liggéey di fayeeku ba léegi ñu ngay waaw di fayeeku parce que moom xëy na jaaykat la <laughs> gisul ñuy ñëw di jënd mu ne xaalis bi circulé non mais foofu la ko résumé ku doon sàcc kay di ñëw di jënd moom dootul sàcc ñëw mm-hmm. jënd mm-hmm. parce que kat Erdogan bi mu ñëwee bi mu waxee projet bi yi gaa dañ ko wax lan ngay def mu ne téye loxo sàcc si ñii bi ñu ñëwee dañoo répété wul même mooy de mais dañ ne la dañuy jubal dañuy jubanti mm-hmm. te dañuy jubal mooy amul kenn kuy sàcc ku doon sàcc dinañ téye sa loxo te ñun ñi ñu àndal kenn du randal mhm. wax ci leer na mooy ñi sàcc woon nañ téye seen loxo na leen génne leen ñu teg ko ci yoon mhm. ñun nag kenn du sàcc mhm. day jaar ci yoon day jaar gis nga kuy acc kuy teen rek lay bañ a gis <laughs> boo teenee rek pour moom moo tax coow li bëri ma mi moo tax coow li bëri gars yi def moom boo yëkkatee benn dossier rek gars yi commencé mel ni ñu bëgg a jëfur ko ah du ñu jëfur de dañ dal de wax dëgg yàlla c'est que coow li mooy euh, man yàgg naa wax na ñi fi nekkoon moom soit dama soit danoo danoo danoo yéenewul askan wi wala danoo cuune ma léeg-léeg am yéene Aliou léeg nga bëgg def ah, cuune ngay doon mm-hmm. seer ngaa ko o a <laughs> doo xam fooy commencer si doo xam fooy commencer doo xam fooy teg en moom ñoom ci pëcc xoo la ñu nekkoon en fait ils ont essayé ils pas dañu mënul merew ma leen nag ci télé gi ah. li ma leen meree leneen la loolu chapitre arrogance la hmm. ak tooñ geeg mettital gi ñu def askan wi mais pour mën gi non mënuñu jéem nañu ils ont essayé mënuñu mënuñu nit non mënuñu play game bi mënuñu mënuñu buñ ko mënul nag waaw non ba bi moom par force boo tax wiccax nañ seen loxo ci ndab li ndab li moom boo ci nekkee bëgg dànq ne yow kon yow douze années yi fi gars yi nekk yëpp mënuñu quoi waa yow ah yow de ah bu fekkente ne xanaa dañu jàpp ne euh, indi terre mu commencé daw euh, destination ba nga ko ba nga ko àppaloon nga gàttal ko yemale ko jam ñaajo donte arrangé na ñi nekk ci banlieue bi loolu mooy mën-mën ah kon ba tey baax na bu dee dañu jàpp ne BRT li ñu ci investir ci ay milliards yëpp muy daw diggante Géejawaay ak Ndakaaru donte arrangé na ñenn ñi mhm. waaye ñi nekk ci poqotaan yi tali poqotaanu BRT yi loolu tamit loolu lu du war a lijjanti la man xam naa ne ni ñu ko defee système bi mooy que BRT bi dox pokotaani bloqué <laughs> effectivement pokotaani pokotaan dañu bloqué doxunu donc loolu moom mooy seen système boobu bu dee loolu mooy c'est à leur système bu dee loolu mooy dox ñeneen ñi di loolu mooy aay ok kon kon ba tey man de dafa am loo xamante ne dama koo gëm mooy ne réew defalum tali baax na mhm. développement passe par les infrastructures fexe également ba nit ñi am mobilité baax na waaye nag xanaa balaa ngaa jóg bay duggi oto di dem sa biir dafay fees xanaa da ngay suur yow Samba est xam nga li ci xiif. ah bañ a xam. Aliou boo xiifee da naqari deret te boo xiifee doo amut xam-xam. the ah, hungry man is all the nga xam nga yii la may def nii ku yi may dugal irrégulier yi li bokkul ci émission ba ko mu dellu si ci li ñuy waxtaan xiif sa boo ko defee doo am diine. doo am diine àndut ak jaamu yàlla. da ngay weddi yàlla. <laughs> xiif maanaam et sincèrement euh, ils ont réussi à faire de telle sorte qu'il y ait des Sénégalais ouais, ouais, dans ce pays qui connaissent réellement la faim mm-hmm. te dañ koy weddi ñoom mm-hmm. non non non ñoom dañ koy weddi mais da am ci yow attends kër boo xamante ne y avait un strict minimum lu nit mënoon a assurer mm-hmm. ñu dem ba boroom kër ga mënatu ko assurer bu dee gestu xool ci njabootam njabootam nu koo dimbali ndax njabootam amul benn plan boo xamante ne teg nañ ko fii luy war a mën a permettre à la jeunesse ñu mën a euh, nekk ci ay structures yu baax mën a liggéey mën a am ay salaires yu baax. Mm-hmm. le revenu du sénégalais ñun ñëpp xam nañu ko. Mm-hmm. mais boo xoolee sénégalais bi li muy gagné en terme de salaire nga comparer li say ministre di jot. li say député di jot. li président bi di jot sans compter keesu présidence ba. envoyé spéciaux ya. envoyé spéciaux ya. chargé de mission chargé de mission ya. la longue liste ministre ba nommé ministre auprès du ministre loolu bu dee xam-xam la nga wax ma ban xam-xam la am. ci réew mi c'est-à-dire que ñii dañoo tële mënuñu. 12 ans de régime 12 ans d'échec. je suis désolé mais c'est ça la vérité. ma en fait man ñenn ñi nee nañu ma bon defar na ay tali yoo xamante ne permettre na quand même euh, ñu mën a désengorger ba ci yenn axes yi nga xamante ne mais am na ci yoo xamante ne nii est-ce que xam ngeen ne état continuité la yenn projet yi mais Macky Sall daf ko fi fekk. Mm-hmm. ce sont des projets de Wade du koy wéyal. Diomaye Macky lu mu bon bon bon xanaa bàyyi na fi ay projet la yaakaar yenn ñi président Diomaye da koy yeggali. Mm-hmm. moom bu demee ainsi de suite parce que euh, état mooy doxee noonu. Mm-hmm. mais en fait c'est-à-dire que ñoom même s'ils ont fait du bien li ñu mujjee ci seen daanaka njeextalu régime mooy yàq lépp loo xamante ne defoon nañ ko fi ci lu baax ak ci lu rafet et tout à boo duggee ci prix wu ci euh, baisse des prix ak yenn mesures yi nga xamante ne gouvernement bi tàmbali na ko jël tu vas voir que dëgg-dëgg ce que ñoom ils ont fait ou n'ont pas réussi à faire pendant des années voilà deux messieurs et leur gouvernement. Assane ak Ousseynou ñu ñëw en deux Assane ak Assane ak. mois ñu am ay réformes yu ñu fi commencé teg. Mhm. donc sénégalais yi man ak ceux qui sont dotés de de conscience lay waxal mooy ne gis nga le monde ne s'est pas transformé en un jour. Mhm. mais il y a une certaine volonté qu'on peut certainement appeler une volonté positive mooy ne ce que eux ont fait en jours ne serait-ce que dans le domaine de l'agriculture buñ ci taxawee kese kese kese li ñuy ci jot a jël ci ay décision ak procédé bi nga xamante ne moom lañu indi war nañu mën a jàpp ne bu ñu leen mayee temps ñu liggéey mhm. am na lu bari loo xam ne mën nañ ko soppi bu sénégalais yi yàkkamti mhm. bu nu nangu mu fausse information nañu dem à la source surtout que maintenant moi ce gouvernement laa benn technique la ñu am te loolu commencé na ma neex trop ci ñoom mooy ne euh, ex-Twitter. Ex-Twitter. Tu les vois pas tweeter comme le faisait notre ancien président de la République mmh. sur des choses presque inutiles, mais dañuy tweeter sur des actions gouvernementales.